jullit yi mbokki taalibe ku dégg woote lii nag mooy sa woote muy le 9 septembre fële ca Thiès ku aye mooy julde bu Baye Ousmane Dieng ki nga xam ne bëggul kurut Dieng yaakaarul kurut Dieng nooyewul kurut Dieng Dieng point lay doxee foo ko fekk mu ngi drapeau Baye Ousmane moo aye nag tuddee ma man Baye Aziz Mor Pa Omar ñoom yaa mami Zoana Yande maanaam daal ñun ñëpp la ko tuddee muy koo xam ne nag sans frontière la ndax ku ko gis ak commando baay ngeen a julde taalibi commando baay la soo ko gisee ngeen a taalibi sëriñ daam taalibi keneen kon ñi ngi woo ñëpp la neuf Thiès Madina Fall bu kenn des man lañ ko tuddee yéen ñëpp ñëw leen dañuy allah baay ba fajar waaw jërë ngeen jëf. ba jox ma mu ah, ngi wax jërëjëf Baye Ousmane di waxaat jërëjëf Baye Ousmane di wax Baye Ousmane Dieng yàlla na fi yàgg te ànd ak wér Baye Ousmane Dieng yàlla na ak wér ñu ngi santaat yàlla beneen yoon comme li Saka Dia wax rek seen mbokku taalibe moo am programme fële sa Thiès le 9 septembre di ci woo mboolem taalibe Baye rawatina ak jullit yëpp nag ñuy woote pour njukkal Mawlana Baye Ousmane Dieng rek ak bége Allah Baye boo xam ne amul arrêt waaw di ci woo sikarkat yëpp nag affaire bi daal suñu affaire la ñun axlu axlu faydu saane ñun moom la ñuy dundee moom la ñuy nooyee di waxaat jërëjëf Baye Ousmane Dieng rek Dieng rek.